que le président Macky Sall mu ressaisir. Mhm. mu xam ni moment bi quelques mois moo ko fi dese na jéem a tàggatoo ak sénégalais yi fexe ba ñi nga xam ni mi ngi jëloon ay épée de te teg ko seen bopp mu rétablir ci leen ci seen i droit bàyyi leen ñi participer ci élection yi. Mhm. que le maire gagne. d'accord peuple sénégalais moom mooy décider. mi ngoog alors ñu ngi koy wax léegi honorable si dafa am loo bëgg a yokk par ah. rapport ak. Euh, li ñu li ñu soulevé benn information xam nga mooy bi ñuy wax le débat actuellement nii. bi def loi des finances da nga dégg ñëpp ñu naan budget Sénégal ay mille milliards la ñëpp du kontaan mais y a document très précieux qui est à la loi de finances ren document boobu bu ñuy wax le document des risques budgétaires pour que budget bi ni ñu ko tëggee mu demee noonu pour mu am il faut que lii. Mhm. xam nga document bi xam nga premier principe lan la. ñu éviter pré campagne préélectorale mu am comme li am Mbàkke li am Mbàkke bu ci amee ñaar budget bi forcé na mhm. mooy li ma la ay grenade rek parce que yii prévoir buñ ko ci budget bi mhm. moo tax dans le document dinaa leen ko jox sëñ Saliou document qu'on appelle un document sur les risques budgétaires. mais loolu ça devait être prévisible parce que parce que aujourd'hui non non non euh, le ministère des finances a dit non. duñ ko budgétiser. Mhm. parce que ressources yi amuñu ko. li ko mën a sauver kañ mooy li ñuy budgétiser fexe leen ba pot Sénégal bu mu yëngatu. Mhm. bu yëngatoo les bailleurs du deen daw. deuxièmement ce naa a prévu parce que la mobilisation de ces cet argent amuñu ko. mais kon li ko nar yàq ak les sociétés qui sont presque en faillite il faut ñu def tout pour sauver ko beneen bi mooy. Mhm. Euh, le débat Sénégalais yi mënoon nañu am débat actuellement nii si. le gouvernement avait accepté les questions au gouvernement nga toutes les actualités comme li muy wax règlement intérieur bi muy wax ni on a posé toutes les questions au gouvernement pour ñëw assemblée nationale qu'on pose ce débat sénégalais yi mun ci participer tey mënoon am débat boo xam ne tey ça va être sur une question au gouvernement boo xam ne on en a discuté à l'assemblée nationale mm-hmm. bu ñëwee fii avant-hier on a fait un débat avec le on a été au au King Fahd palace vérifier toog waxtaan. vérifier lu bëri. war a xam Sénégal yi on va le problème du terre la mais BRT bi gën a garaaw. on a écrit on a reçu la loi de règlement deux mille dix huit deux mille dix huit laa wax ah. deux mille dix neuf mais bi mais xam xama lu ñuy wax. cachet confidentiel. mooy lan. da nga koy génnee léegi ñu indi la problème encore parce que li si nekk musiba la bu génnee ñu fàtte bu génnee ñu fàtte Covid. Mhm. mais mënoo gëm ne Sénégal yi gars yi taxal nañu Sénégal comme ça tu ne peux pas l'imaginer. d'accord c'est estampillé secret et confidentiel. confidentiel ah, ah, quand tu donnes un document à, un député c'est pour le peuple. dès que mu ngi ci loxo assemblée mooy comme jox nga ko seen Saliou jox nga Mohamed jox nga ko. Moussa Moussa. et votre rôle c'est de divulguer ça. c'est document on va parce que musiba la gaañ yi c'est-à-dire depuis 2018. Mm-hmm. la cour des comptes du du la loi de règlement moo tax ñu bëgg ñu ko bloqué. Mm-hmm. c'est pour dire que l'assemblée l'opposition s'est organisée cette fois-ci que tous les problèmes de ce pays li nga ba li le le terre là. Mm-hmm. les gens ne sont pas sérieux. moi je suis à Air France qui est actionnaire à la SNCF. suñu collègue ñooy jóge France de ñëw te ñoom c' est ça des Macky n'est le président le ma li mu wax c' est pas bien. dire que ne le terre appartient au Sénégal moo Sénégal moomu ko. à l' Assemblée nationale <laughs> le terre doit à la Sénélec plus de cinq cent millions mënuñu ko fay. Mm-hmm. parce que les caténaires la li koy dawal courant bi koy dawal attanuñ ko. Mm-hmm. tu as donc waxuñu la 1000 francs yi mille 1500 c'est pas la vérité prix ñu ko. le BRT là ça va tuer Dakar Dem Dikk c'est pas pour nous. d'accord donc voilà des réalités des débats sur lesquels sénégalais yi dañu war a xam parce que l'inauguration yi mooy nax sénégalais yi c'est comme si on dit ah oui Sen TV micro mais pourtant le gars de la mhm. mais il a acheté du camion du ñebe. mais ñebe baax na. mais mais à quel prix. 4000 francs le, le coût yi moo baaxul le TER là musiba la c'est pas un TER c'est un tramway. Mm-hmm. c'est un tramway. D'accord. Alors, Donc euh, voilà des informations sur lesquelles on doit débattre. L'opposition est prête, mais on n'est pas maître du jeu. On, on, me signale que les paramédicaux sont en grève depuis 4 mois. Mhm. Et d'ailleurs, on a arrêté le programme élargi de vaccination. Quand même. La sorte au Sénégal. donne un problème. <laughs> Alors, nous, non, Réumi Fof le toll, au moment où euh, rapport Gen Fiseñ Saliou, rapport Cour des comptes, li nga xam ne am na évolution, on peut en parler. Euh, ko police judiciaire bu ci mel la division des investigations ñu bëri doon sàkku aussi ñu andi ci ay leeral est-ce que jàpp nga ne fi mu toll nii euh, mbir yi euh, wares na ko mën a leeral. <laughs> Mohamed man de bi affaire bi bi mu génnee la communiqué du procureur la lendemain contrairement aux journalistes qui sont enflammés man j'ai fait un éditorial pour dire que il faut faire une messe de requiem pour le rapport de la Cour des comptes. tout comme certaines sociétés civiles. moo euh, xam dañoo sceptique. par rapport ak man non dama le procureur vient de euh, en tout cas de consacrer un enterrement de première classe au rapport parce que bu ñu nee dañuy jël ay officiers de police judiciaire ñoom pour ñu defaat encore beneen enquête mais à quoi maintenant sert le rapport de la Cour des comptes enquête yu nga xam ne ay magistrats mais non ñi c'est des magistrats financiers hiérarchiquement ñoom ñoom ñoo ñoom ñoo nekk au-dessus même des, des officiers de police judiciaire donc ñoom rapport yow boobu ñu def loolu mooy seen loolu loolu moom mooy seen liggéey ñu def ko je crois que li mu waroon kay mooy sukkandiku ci jàpp jël benn juge d'instruction ne ko ouvrir une information judiciaire sur li nga xamante ne moom mu lay def comme recommandation mais soo ne dañuy recommencer waat ay enquête nee naa leen mën nañ ci dem mais ce sera de être au-delà de 2024. yaakaar nga ne eh, mën na dem ba au-delà non et puis wala in fine on va prendre deux petits poids lañ ci jël rek dóor leen ay lampis nga xam ne amuñu ndey amuñu bàyyi. ba pare daal di waaw sacrifier leen maintenant mais les véritables ñi nga xam ñoo ci tax rip ñooñu kenn du leen inquiété te xamul lu ci gën a graaw mooy les véritables responsables de ce cest à de de ce détournement là en tout cas li ñuy bi def ci rapport bi ñoom seen wàllu bopp ñoom ñooy organiser conférence de presse yi di gëmloo ni ñu ne en réalité ay six milliards et kese la. mais rapport bi li mu wax leer na xam nga loolu du lu ñuy kii du lu ñuy nëbb. déjà l'ex ministre de la santé am nañ ay huit milliards yoo xam ne laaj nañ ko ba léegi ñoom mënuñu ñu tontu. je ne parle même pas des marchés de gré à gré yi ñuy jox à de sociétés yoo xam ne qui ne sont pas habilitées à la matière mais ñoom ñu jox leen ay marchés yoo xamante ni plus de plus de quinze milliards ci yaamaneex mm-hmm. l'actuel ministre des finances moom am na lu ñu ko laaj. sur l'argent de la journée. sur l'argent des des des des des sphères ministérielles. Mhm. mais li rapport bi li mu wax. les réponses ne pas claires. Mhm. cest à que finalement ñi nga xamante ne tey ñoo war a rendre compte muy ñi nekk ci kaw léegi dañuy ne directeurs généraux yi DAGE yi ñooñu la ñuy ciblé wante ñan newoon ca kaw les véritables ordonnateurs. Ah ñooñu fi ñu toll nii ñoom génne nañ leen ci mbir mi. te xam nga ne officier de police judiciaire mënul woo ministre di ko di ko di ko laaj. ministre day jaar haute cour de justice mais du ñuy ñoo leen di woo di leen laaj donc finalement kan la ñu bëgg a taxal et puis Ismaïla Madior Fall la ma waxoon leer na dès le départ rapport bi mu génnee minimiser na rapport bi ne woy amuñu droit wax lii nanga mag na et cetera. mais mais mais mais, mais est-ce xel mënu cooy dal ci bu un comme FMI sàkku déjà moom boobu léegi rapport est-ce que ñii mënuñu dem. Ah, jusqu'au bout mais sont les quels sont les résultats yi nga xamante ne ñoom lañu jox waa FMI par la suite. loolu mooy wax bi moo tax ma ne bu ñu demee ba cappaandaw ba deux petits pois trois petits pois lañ ciy jël taxal leen ci daan ne ñii ñoo détourné xaalis bi nangam parce que déjà bu ñu minimiser li nga xam ne moom moo am comme perte ñoom lu ñu wax dañuy six milliards la donc dañuy sur les mille milliards jaarul na sax six milliards ñu luubal ko alors que un franc de la république muy sa franc di franc madame le maire di sama franc di franc Moussa ak San ak Sénégal yëpp lekk. da nga ko war a wax c'est-à-dire da nga war a wax fan la jaar parce que du parce que moomuloo ko. très léegi bu fekkee ne ñoom ñoo dem def seen conférence de presse minimise daal ne ay six milliards la alors qu'en réalité ëpp na loolu chaque jour damay déglu Mamadou Fafana boo déglu Mamadou Fafana li muy xëy di wax. <laughs> non boo ko dégloo chaque jour li muy wax. waaw boo ko dégloo <laughs> c'est-à-dire boo defee la sommation je te dis que près plus d'une cinquantaine de milliards mm-hmm. évaporé wu na dans la nature te ba léegi leeraluñ ko. donc sénégalais yi bu ñu leen nax gis nga rapport bii président Macky Sall dès le fi mu njëkkee permettre sax nit ñi def ay njombe ci mbir mi mhm. mooy ba ñu demee déroger surtout sur le code des marchés les gens ont fait ce qu'ils veulent Mohamed ci rapport ci c'est-à-dire si xaalisu Covid bi lu leen neex lañ ci def ñi nga xamante ne même délai yi ñu joxe woon sax pour la dérogation au niveau du code des marchés am ñoo xam sax délai bi xool dañ ko étendre ba heure bu leen neexee lu leen neex la def gestionnaire yi ku leen neex la ñu dem jëm def def def gestionnaire c'est-à-dire que finalement ku ci nekk daal la la neex nga def ci xaalis bi et puis ils ne veulent pas que les Sénégalais en parlent. bon maintenant sous la pression peut-être des bailleurs et sous la pression de la colère populaire. bon ñu ne on a saisi je ne sais pas les les, les officiers de la ah, man man de waa DIC moom wóolu naa leen trop mais dafa am foo xam ne ni ñoom fa la seen prérogative yem. su fekkente ne magistrat de la cour des comptes la nga xamante ne moom la ñu jébbal ñu ko jox benn juge d' instruction ñu bi une information judiciaire man jàpp naa ne kon jaratul ñuy auditer fii kenn dans ce pays là. parce que nag aussi mhm. président bi li mu ñu tàmmal moo di rapport yëpp sous le coude rek. quand même yëpp sous le coude <laughs> mi ngoog alors madame la maire Aïda sur le sur le rapport de la cour des comptes gis nañu fii ay kilifa yuy def faute de gestion wala ñun ni ne ay faute de gestion la ñu def ñu euh, jàpp leen tëj leen ba sax ñu perdre seen ay droits civils alors rapport cour des comptes ni mu génnee ay nit yu ñu épinglé ay faute de gestion yu nga xam ne kenn mënu koy lamlaame est-ce que xel déjà mën na dal ci euh, processus bi nu nu koy toppee ba jébbal ko yoon parquet bi dénk ko division des investigation criminelle police judiciaire pour ñu ubbi ci ay enquête préliminaire euh, xel mënu ci simplement parce que déjà euh, bi rapport bi génnee je pense que c'est la première fois que yenn ministres yi ñoo dem ci ay plateau pour défendre mbir mi en disant que non c'est six milliards sur huit mais rappeler ni que bi couvre-feu bi amee nit ñi parce que ay ceeb la yu ñu waroon jox ñi ko yellool am na ñoo xam ne bu ñu xëyul woon mooy les ambulants dem liggéeyi. dépense par jour lañ koy am. am ay famille yoo xam ni ils ont été obligés xañ seen bopp le temps que kii bi di ñëw ni ñu koy waxtee don bi don yi di ñëw. Mm-hmm. parce que simplement ñi ngi dund ci benn pré précarité. may wax ni au-delà de Covid bi man damaa amoon samay petite sœur yoo xam ni euh, dañ defoon accident ñu dem Dantec bi ñu yegg see kenn ki pour ñu opérer ko dañ ma ne soo jëndul kitu soixante dix mille duñ ko laal boobu c'était en 2017 le temps que may indi xaalis bi c'est-à-dire que cette fille-là elle criait de douleur ñu def fa deux mois su ma génnaan di jëndi ordonnance bi da ngay gis des pères et des mères de famille yoo xam ne mënuñu fay ordonnance bi mhm. est-ce que six milliards yooyu man waxuma sax construire ay postes de santé wala wala wala wala hôpital est-ce que amul luñ ci waroon mën a subventionner am ay nit ñoo xam ne lekkuñu woon naanu ñu woon e je rappelle que pour man c'est au-delà d'un vol d'argent kii de meurtre la parce que des gens sont morts c'est-à-dire Covid bi du woon feebar boo xam da ngay tëdd jog y a des gens qui ont perdu leur vie ah, est-ce qu'on a fait des enquêtes pour xam lan moo tax ñooñu ñu ñu ñu wàññeeku parce que xaj nit ñi li nga xam ne mooy seen droit ñu jël di def ay surfacturation de ce point de vue pour man waruñu tuutil lan mooy scandale Covid bi kenn waru ko tuutil Euh, fi may ñëw mooy Sénégal tey dañu am kumba am ndey ak kumba amul ndey mhm. mu am sama doom moo gën sa doom parce que d'autres citoyens sénégalais ci même mbir yi éviter wuñu dañu ñëw ñu jël ñu inculper leen nee naa la y a des gens qui ont fait six mois de prison pour ay émoticônes ki ñu ne ñoom moom dañ ko jiiñ ñi ñu ne dañ leen jiiñ ñu jël plus de six milliards ñoom ñooy toog à la télé di ñu narguer quand beaucoup de Sénégalais sont dans les situations compliquées te 2021 2020 sori na mais tey aujourd'hui avec hausse euh, nu ñu koy waxte de la vie des Sénégalais tey boo yóbboo benn benn benn paquetu suukar quitté na huit cent francs dem mille deux cent amul benn benn benn rapport benn aide bu ñu war a def sur le panier de la ménagère ñu ñëw gis des gens qui sont en grève ñi mu wax ni euh, les personnels euh, Euh, yi nga xam ni euh, dañu nekk le le camarade ñaaw mi ngi koy wax tout à l'heure waaw mm-hmm. les les employés municipaux je reviens sur ça mm-hmm. yi nga xam ni ils gagnent des salaires dérisoires depuis six mois ñi ngi en grève kenn xamul pendant que ñoom ñi ngi doon kaaf na li ñu liggéey yokk leen ko ñeneen ñi ils ont volé six milliards parce que je dis qu'ils ont volé parce que je pense que les gens de de la de la Cour des comptes mm-hmm. euh, ñi def le rapport du ñoo xam ni ils sont venus ex nihilo ñëw parce qu'ils sont contre quelqu'un ils ont fait un travail scientifique ils ont fait un travail basé ci ay faits donc nañu respecter s'il vous plaît les sénégalais ñu woo nit ñi ñu rendre compte maintenant comme on le dit man ci lépp loolu lay wax hmm. nit ki tant que jugé guñ ko il n'est coupable mais dès l'instant où les où il est présumé coupable nañ ñooñu dem nañu répondre parce qu'ils nous doivent en réalité des justifications ils nous doivent ils doivent nous expliquer fan la suñu xaalis dem parce que six milliards yooyu ñuy wax wala mille milliards impôt sénégalais bi moo ko fay dañuy ñëw chaque mois sa salaire ñu dagg ci impôt ñu dajale ko lool mooy nekk budget wu nu ñu koy waxetee l'état du Sénégal donc de ce point de vue aujourd'hui la victime c'est le peuple sénégalais oui. la victime nag le peuple sénégalais réclame à ce que ñi mu fal nañu ñëw répondre ko jox ko li muy demee maintenant man je suis waaw je je aw ma ci yaakaar. awma <laughs> ci yaakaar dans le sens où am na ku ñu fi ji ñoon 94 milliards. kenn kenn kenn woowu ko. am na avant scandale Covid bi yeneen scandale yu fi am am ñuy naan nañ ñu jox suñu 400000 kenn woowu leen. am na yeneen yeneen yoo xam ne dañu ñëw conseil des ministres ne j'ai mis mon coude sur les dossiers et beaucoup d'entre eux ils ont transhumé. ce qui veut dire que tey boo ñuulee il suffit que nga nga ñuul nekk fii boo demee fële dangay ngay weex amatuñu lu ñu la reproché et loolu moo tax ma ni tey Sénégal dañu nekk ci benn état boo xam ni en fait nit ñi fii la ñu am ils en ont nu ñu koy waxatee sous la gorge parce que simplement di gëm nañ ni doomu baadoola yi amuñu la même chance que les autres mmh. wala les opposants